li sadinatan bi kun lil janna min daari asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokk yi man sëñ Moustapha Diatara maa leen di nuyu eh, nekk fii ci Daaray Kaamil nekk itam ñu dikkoon tey jii <coughs> ci wàllu eh, liggéey solo boo xam ne ñu ngi jëm ci wàllu daara yi muy ndimbal wéer yi loo xam ne sëriñ bi daf ko def ci daara yi mu jëm ci wàllu wér gi yaramu ñi nga xam ne ñooy ndongo daara yi sëñ bi joxe ci lu war ñaar fukki million yoo xam ne nañ ko def ci euh, wér gi yaramu ndongo yi daara yi loolu kon moo taxoon daje bi tey moo taxoon tam ñu ñu euh, sëñ bi moom xam ngeen ne état bi am na ñu nga xam ne am na lu mu tëral lu jëm ci wàllu wér gi yaram euh, ci maladie universelle maanaam pour faj ñëpp loolu moom am na solo lool ñu ngi ñaan yàlla mu gën a yaatu gën a jëm kanam ndax wér-gu-yaram moom mooy am réew euh, bu bu wér amul rek euh, mën nañoo wax ne dara taxawagul waaye sëñ bi ci jëm boppam nag moom dafa xaarul kenn moom daara ak jàng daf koo ñor ndax dégg ngeen fan yii rek mu mubaadara bi nga xam ne def na ko ci fas yéene ñu jógaat ci njàng ak njàngale bi li tàmbalee ci suuf ba ci kaw loolu taxaw na ci ba fi mu ne liggéey bi fi mu toll nii mi ngi dox ba gis ngeen université bi fi mu ne euh, tàmbali nañ ko kon loolu day wone ne sëriñ bi moom jógaat na beneen beneen taxawaay am na beneen taxawaay naka jëkk nag moom taxawaay boobu mi ngi fi woon ndax moom xam-xam da koo mës a ñor xam-xam dafa mës a nekk loo xam ne moom moom la jiital ci lépp te Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi nga xam ne itam mooy lépp moom la jiitaloon ci lépp inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa kon loolu la sëñ bi nekkee woon kon tey jii itam mu defaat beneen jéegooti bu gën a am solo te moo dina nag ñu di jàng nag ci daara yi yëpp nañ fexe ba jàppale leen ba nga xam ne li jëm ci wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne sëñ daara yi sonoon nañ ci googu wet ndax dañ lay fab nit ne la ay yaxam laa la laa lay laaj te loolu war ta demee noonu eh, kooke bu feebaree yow yaay yóbbu hôpital koo xam nag fayuñu la joxuñ la lan luy sa àq bàyyi la ak gone muy siburu di lu ne di ko dal nga di ko yóbbu hôpital di fay lépp lu ca war nga bëgg koo fayal sa bopp loolu nekkoon na yenn bu diis a diis a diis boo xam ne métti woon na ci daara yi waaye sëñ bi tey yiit jóg na ci incha allah fajtal ko ba mu wér te dafa tàmbalee ci loolu waaye mu nga jëm ci kanam kon loolu nekk na lu am solo loo xam ne eh, ci njiitul sëriñ Maam Mor bi nga xam ne moom la sëriñ bi fab daara yi teg ko ci loxoom mu di ko doxal waxtaan na ci waxtaan wi nag day gën a wéy ba nga xam ne mbir mi fa nga xam ne moom la ko sëñ bëggee muy mu egg ci ndongo yi loole incha allah dina ci egg ni nga xam ne ni la ko bëggee euh, ñoo ngi ci ñoo ñoo ngi ci loolu loolu moo taxoon ndaje mi tey ji moo taxoon tam ñu daje fi bokk yëpp daje fi waaw daara yi dafa xaw a takku daara yi ak école yi ak yëpp dañoo bokk ndax daara yi ñi jàngee ci daara yi bu ñu jógee ci daara yi ci école yi lañ jëm euh, loolu kon takku gi foo ko takk weesu na ko ndax at mu ne bu ñu recensé recensé euh, dana yokkuwaat lu bare bare bare fii ni ñu ngi wax ne junni ak ñeenti téeméer junni ak juróomi téeméer waaye bu ñu recensé waatoon danañ dem ñaari junni kon loolu dafa nekk loo xamante ne day yokk di wéy at mu yokk day yokk di wéy waaye sëñ bi moom incha allah lim mu fas yéene moo di lépp lu mu man rek dana ko ci def matale nag lu jafe la waaye lim ci man lépp incha allah mi ngi koy def te ku xam pëstéefam xam taxawaayam xam yéene ji nga xam ne moom la am ci wàllu xam-xam xam ak dogoom dana la wóor ci ni lii nga xam ne moom la jël incha allah euh, nekk na loo xam ne moom euh, yan bu diis boo xam ne ñëpp yan woon nañ ko te mi ngi leen koy yenni yan yàlla gën ko fee yàggal loolu rek ba nga xamante ne dana eggale yéeneen yëpp loolu dongo yëpp ak taalib yi yëpp war nañ koy ñaan rawatina ñi nga xam ne nag ñooy ndongo daara yi ak sëñ daara yi war nañ di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moursal Mountakha ba yàlla yàggal ko fi lool lool lool yéene yi rëy na pëstéef bi rëy na foo ko takk rek weesu na fa kon nañ ko ñaanal yàlla mu am tal am wér ba lim yéene lépp mu yegg